pare nga mu ne ko waaw Lac yi arbitre bi sifflé na combat bi dimanche 22 24 juillet 2016 Stade Demba Diop Aziz Ndiaye Aziz production woo ñu fi drapeau de l'émergence Yaxya Diop suñu ndeyjoor yëkki ñu ne champion d'Afrique Lac de Guiers numéro 2 le policier bi wàllu mbokk yi suñu càmmoñ ñoom sa tànku càmmoñ ñoom ñaar ñu ngi ne tekki ñu ngi xoolante Lac de Guiers numéro 2 ak yëpp ñu ngi leewaatoo

génn la dageer la dageer na ba mu yàgg mu njool ñoom ñaar mbokk yi ngi lewaatoo ku ci ngi na teg la dageer ak Yékini Lac de Guiers ak Yékini ñoom ñaar ñi ngi ne teg ku ci nekk yaa ngi morom mbokk yi ngi ci fi nga xamante ne nii mën naa ne c'est le temple du sport yi ñu ngi fi nga xamante ne nii match bu ne am na fi ci histoire ñu ne Sénégal fii la njëkkee dóor France mbokk ci histoire ñu ne Mbaye Guèye ak Robert ñoom ñaar jege yoon nañu na ne làmb ji ma ngay bëgg a jeex ñoom ñaar jege la déggee daal Yaxya mel na nu koy avancé la déggee mi ngi arrière tuuti la déggee ak Yékini mbokk yi ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo maintenant ñu ngi leewaatoo ku ci nekk yaay xool sa morom xale la ak mag waaye ku mag moo xamante ne nii mag mu mag mu bàyyi boppam la de déedéet daanaan la groupe boobu nga xamante ni nii luy doxal Sénégal rek lañu bëgg dox Lac de Guiers ak Yékini mbokk yi la Yékini nu woon ginnaaw léegi Lac de Lac de Guiers nu woon ginnaaw Yékini la jàkkaarloo ñoom ñaar ñi ngi ñi ngi damantay cette date cette journée organisé par Aziz et Production. Deux grands hommes de la lutte sénégalaise. La guerre à été Yékini la ñaar La guerre Guiers mel bëgg ñi ngi na teg la dëgër la dëgër tànk bu mu teg teg benn ci kanam ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Yékini Lac de Guiers ñu ngi lewaatoo Yékini na waaye demul Lac de Guiers Yékini deux grands boxeurs deux grands techniciens ñoom ñaar ñi ngi damante baaraam mel na ni combat bi seen bar ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo léegi ne Lac de Guiers ñoom ñaar xeex nañu xeex dox ci kawam sànni na góos duraat moom yëpp Lac de Guiers riposte na ñoom ñaar tension Lac de Guiers riposte na moog Yaxya taxaw noonu jàkkaarloo noonu ñoom ñaar fi mu lewaatoo day ne da naa ndax Lac de Guiers waroon naa bàyyi Yaxya diriger ndax Lac de Guiers waroon naa bàyyi Yaxya diriger combat bi mbépp na ci suuf waaye demul Yaxya ak Lac de Guiers ñaar ñu ngi ba léegi ñoom ñaar ñu ngi ba léegi attention Lac de Guiers a ngi déplacé wu koy attention ñaar Attention, la daga sànni ba benn gauche. La Yaxya ngi ree ndeysaan. Yékini la de Guiers. Attention ñoom ñaar yo nanu ñu ngi gën a jegeyoo. ñu ngi gën a jegeyoo ñaar attention ñaar nañu Yékini mi ngi dox ci kawam attention ñoom ñaar xeex nañu jàppante nañu la dëgër Yékini jàppante nañu Yékini bal na ko ñoom ñaar jàppante nañu ndax combat bi day jeexee fii placage day am wala luy am la ilaha illallah ñoom ñaar jàppante nañu la dëgër jàpp na ci ngemb Yékini Yékini jàppul la dëgër jàpp na ñaari loxo ci ngemb Yékini attention Lac de Guerre ak Yékini Lac de Guerre mi ngi jàpp ba léegi mi ngi na teg ndax ya ndax Lac de Guerre day daal di exploiter li nga xamante ne moom mooy ya. dooleem wala Yaxya day dox ci expérience ñoom ñaar ñi ngi jàppanday xëy jàppul fenn Yékini Lac de Guiers jàpp na ñaari loxo ma ngi ci ngem bu Yékini Lac mi ngi gën a dugg lu mu bëgg Yaxya dóor na ci suuf mu yëkkati bopp Lac de Guiers ak Yékini Yaxya dóor ci suuf laay lii la Lac lagi Guiers ak Yékini ñoom ñaar attention ndax Yaxya Diop Yékini tey daan na ko exploit Yékini plaqué na ko daan ko la ilaha illallah ak siin mbër yaa ñu sagal mbër yaa ñu sagal non yaa ñu sagal yaa ñu sagal booy yaa ñu sagal yaa yaa ñu sagal waaw dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla xam nga yéegi dañ ko cër cër lañ ko cër boobu moom mooy ni ñu bëree tey mooy ni ñu bëree tey dañuy sant yàlla baax a baax parce que tey euh, lamb la woon ku daal waaw dafa waaw dama ko gis dama yàgg jigéen dama yàgg seetaan ba léegi dama koy wax nit ñi xamuñu ko sax boobu kenn bëri guloo ko moom. lu tax action bi teeloo teeluloo nangu jàppante bi. parce que maman boobu il xeex bi waaw il faut ma xeex bi te ah. waaw parce que ku yëkkatal la ku yëkkatal moo